asalaamaaleykum waa Sénégal rawatina waa Mbour Géej man Sista Kenza ma amaat contentement di jàkkaarloo waat ak yéen fii ci seen info 8 TV ci émission bi ñu naan seen star tey nag ñu dalal ki nga xamante ne kenn dootu ko présenté waa Mbour muy Dija Azou Dija Azou ñu ngi lay maa ngi lay fay Sista Kenza. baa ngi ci jàmm. waay sa va alhamdulilah comme d'habitude. <laughs> comme ni ñu leen ko waxee woon rek tey dañu ñëw fii ci Daaru Salaam seet fi ku ñu naan Dija Azou pour waxtaan ak moom Dija Azou avant ñuy wax ak yow avant ñuy xuus dañ lay laaj kan mooy Dija Azou. waa donc bu ko defee mooy nuyu ah, téléspectateurs yi nga xam ne ñooy toog di ñu seetaan. Mm-hmm. à travers ci seen seen info. 8 euh, TV mm-hmm. ah, di am contentement aussi tamit ci ñëw bi ngeen fi ñëw et ça fait vraiment euh, plaisir comme ni nga ko waxee mais nag da nga maa waroon présenter ndax kenn xamuma eh. <laughs> man euh, de mon vrai nom c'est Assane Ndiaye Seck plus connu sous le nom de DJ Azou waaw maa ngi nii l'enfant chéri de Mbour comme ni ma koy waxee et aussi natif de Mbour bëggu Mbour daal. di doomu mbuur juddoo fi <laughs> yaroo fi màggee fi <laughs> d'accord di jaaju doomu mbuur nga fi nga yaroo fii lañ la ñëpp xamee aussi gis nañ que ni da ngay animé des fois nga nekk ci Instagram bi di tooñ nit ñi di bind ay <laughs> citation booy loolu léegi loolu noonu lan moo la ci motiver da nga xëy ni am inspiration bi def ko wala da ko jàng wala waaw loolu moom internet moom suñu génération ñu ñëpp dañu dab Euh, peut-être xëy na suñu ay parents ñoom amuñu woon chance bi ñu ñu am ci utilisation ñun ni ñu amee possibilité di ko utiliser mm-hmm. ah donc loolu moom lu ñu dab la rek ñu ñu am ci benn expérience boo xam ne mën naa ni as tuut liñ jot a jàng ci école aussi moo ñu ko permettre ah donc comme li nga aussi inspiration yi moo voilà sànq ci biir waxtaan maa ngi naan laan avant ñu commencer mi maa ngi naan laan dafa yoo xamante ni c'est inné en moi xëy na peut-être lu nekk ci man la rek mm-hmm. lu may génn nii di ci fo <laughs> mooy loolu noonu inspiration bi noonu lay ñëwee pour côté animation bi waaw je animateur euh, j'ai la radio j'ai aussi la télé et aussi nekkul aussi loo xam damaa tëb rek def ko xëy na peut bu question yi gënee kii rek ma gënti ci répondre ñu gën ci mën a xuus daal. <laughs> bu ñu déggee bu baax xëyoo rek def ko en plus yow lii nii ngay def citation yi ngay bind via Instagram. Mhm. WhatsApp man damay vu say on dirait que ni li ngay wax yëpp actualité la lu xew la lu fi nekk. <laughs> mooy loolu léegi yow à travers ñi lay déglu wala ñi lay seetaan ñoom nan uh-huh. la ñuy gisee li ngay wax. bon les gens l'apprécient vraiment. parce que nit booy def benn affaire ñi di ko apprécier rek xamal lu baax la et man li def pour dire vrai loo xamante ni parce que dafa xew en fait. <laughs> parce que non du caaxaan li ma def man li may def dafa xew. Uh-huh. parce que dafa nekk man man ci li may gën man lépp lu may def même bu fekkente ni leçon bu may jox nit ñi la. dinaa ci booyee loo xamante ni boo doo ko liir mukk genre mu lay énervé noonu ba en de tel sorte que ni yow boo ko liiree di ci gis dëgg mais di nga reetaanaale tu vois donc et les citations l'inspiration ça en vient juste comme ça partager sinon aussi tamit li may gën a inspiré wu mooy li ñuy nekk ñoom ci li ñuy nekk parfois ci laay basé wu pour mën a jàllale sama message léegi ñooñu noonu ci li ñuy nekk yow ci ngay basé wu n'est-ce pas mm-hmm. pour mën a <laughs> jàllale sa message est-ce que ñoom dinañ ci gis seen bopp am na ñoo xam dañ naan maan carrément asu sonal nañu ñii naan maan surtout xale jigéen nag dama leen mhm, sonal trop dama leen may dara dara laa dernière fois am na benn gi am na benn euh, ku ma ci interpellé ne ma asu lan moo doo wax a góor ñi ma ne ko mais attends lan laay wax ak góor ñi bàyyi leen di di jël seen bopp en tant que jigéen di comparer ak ñun góor ñi bokkuñu te duñ mus a bokk. da war a wax ak góor ñi nag ñu torop. <laughs> non góor ñi mooy loolu daal gaa yi nañ leen bàyyi noonu rek. Mm. gars yi ma bàyyi noonu rek. <laughs> naa ci stade yi rek gis di ja azu di def ay kii compétition. di mm-hmm. organiser ay affaires le 25 décembre bii moo ci mujj. Mm-hmm. léegi loolu noonu yow dajale bi ngay dajale artistes yi. Mm-hmm. da nga koy def pour ñoom ñu fël wala yow da koy def pour sa avantage wala. <laughs> Euh, compétition cest à boo nee compétition ñii ñii ñii kii te mu ñu foog ñu concours laay organiser ñii ñëw gagné ñii perte. alors que c'est pas ça. Mm. c'est juste des événements événements yoo xamante ni comme li ma la wax sànq euh, dafa bokk ci sama liggéey muy animation. Mm-hmm. mais ci côté humour en fait mois je suis animateur de base mais je aussi humoriste pour que nit ñi comprendre ko. xam nga loolu c'est pas c'est pas facile nekk animateur en même temps nekk humoriste mm-hmm. tu vois euh, donc euh, bu ma ko defee c'est des événements yoo xam ne man maa organiser bien sûr mais su ma ko defee sama avantage mu ngi ci parce que aussi c'est mon travail après bu ma ko defee maa ngi ciy seet loo xamante ni peut-être dina ma fay mais aussi pour tendre aussi la main ñenn ñi nga xamante ni peut-être ñu ngi def euh, humour te xamuñu fu ñuy jaar te xamuñu nu koy defee wala bu ñu ko xamee aussi tamit peut-être man fit bi ma ci am <laughs> pour Euh, bi ma ko defee rek dama dem ba première fois bi dama ko def mu jàll deuxième fois bi nag j'ai reçu beaucoup beaucoup beaucoup d'appels ci ñoo xamante dañ may wonaan man ay mois je suis comédien je suis de Mbour taxaw ma leen woon mm-hmm. donc je me suis dit ni donc il est temps que ñun ñu xamante et pour cela j'ai organisé un casting pour mën leen découvrir ñoom ñëpp bi ñëwee gis naa fa ay boy bon y en a qui de talent y en a aussi qui sont moyens mais y en a aussi qui sont un peu <laughs> ko <laughs> mais on Mm-hmm. comme bëgg nañ ko rek gis naa ni buñ jàppalantee ñu ñëpp rek mën nañ ci génn pour événement yi aussi lu neex la bi ma ko tey li may jot en mooy que ni lii musul am mbuur musul am mbuur te kii bi moo ñuy euh, couvre-feu moo ma yaakaar rek mais 14 février bi maa ngi doon waajal loo xam ne biir mbuur moo ko fi tegoon ah non cet na de. ñu ngi naan aar amul mbuur aar doxuru mbuur yow ñiy wax loolu lan nga leen di wax. voilà. une très bonne question parce que man jëlee euh, la dernière fois am na ku ko wax li ngeen naan aar dafa yàqu mbuur fan ngeen ko teg en mais moom si boppam amul la réponse man leen arrêté xool leen ndax aar la wala yéen la en personne parce que aar il est toujours la il sera toujours la li leen dal souvent mooy li may wax sànq dañuy def loo xam ne peut-être xamuñu ko mais mbir boo ko xamee ba pare di ko def ci lay gën a yomb te boobaa doo ci gis njuumte wala amatu fi mm-hmm. ñii way ñu ngi way ñii def ne ñu ngi def leen di ci gis seen bopp c'est parce que jàng nañ xam soo ko def. mais ñoom nee nañ aar doxul mbuur parce que mbuur ñoom gëmuñu aar daal yeneen dëkk yi ñoom ñoo ñu gën a fonk aar. <laughs> Euh, je dis non c'est juste àdduna gis nga lépp loo gis dafa am yoon. Mm. surtout la patience. man mii di ak yow j'ai fait trois ans de radio c'est pas évident doo gis sama morom bu ko def j'ai fait mm. trois ans de radio. la télé euh, ma lay nuyu de passage waa ATV fa laa def rajo un mois laa fa def. j'ai bombardé là-bas waxuma ko pour tàgg sama bopp <laughs> mais boo laajee mburuwaa yëpp xam nañ ne Azou il a ah te ci période couvre-feu bi passé la woon période koor gi nii rek ma fa doon def benn émission tu vois te affaire bi amoon na benn benn ampleur juste bu ñu taxawee naan ay mburuwaa gëmul aar c'est-à-dire da nga naan mburuwaa xamul aar et c'est nous les artistes ñoo war a taxaw pour xamloo leen ko parce que nit aussi mënoo ko invité mu ñëw ci loo xam n xamu ko man première fois bi ma organisé Azou Comedy Club mm-hmm. c'était La Braise mooy nuyu de passage bi ma ko organisé il y avait du monde mais le public euh, avait du mal à agir la là j'ai compris que peut-être ñëw nañ mais concept bi lañ comprendre au fait. d'accord concept lan mooy humour au fait parce que il attendait il attendait peut-être gis benn théâtre kat bu ñëw théâtre kii fecc fi kii alors que c'était pas ça li mu boo déggee mooy da ngay taxaw. tu passes des messages à travers lu maanaam loo xam ne ci lay doon ngay jàllale waaye say messages am na nag ñu bari ñu koy def mais man côté bi may defee xëy na peut moo am différence ak gars yi ni ñuy defee voilà. d'accord à travers les artistes fii nii Mbour. am na ñi nga xamante ne yaa ngi liggéey ak ñoom. wala mhm. am na ñi nga xamante ne aussi ñi ngi ñëw ci yow. pour mhm. wut xam-xam. Mhm. wala pour nga doon seen conseiller. Euh, pour dire vrai. man sama bopp xaw ma daala <laughs> xëy na peut waane rek. kii bi mu jàllee aussi tamit y a pas mal d'artistes qui m'ont dit am na si ku dem sax ba ne ma dama bëgg nga nekk sa manager ma ne ko comment ça on fait le même travail li ngay man moom laay def comment nan laa mën a doonee donc sa li nga mooy manager mënul nekk donc manager boo koy def dafay fekk yow kooku nga nga ci moom en fait mais bëgg li muy def am nga ci xam-xam mais ki ngeen di defandoo même affaire kooku mën ngeen dem ba doon peut-être voilà quoi bokk ba doon di def benn duo kon kooku mënoo ko manager mais y a pas mal de boy yoo ni ñu ngi fi wala pas mal fi chaque jour que jëfee mën naa sax tudd seen tur amul problème dañ may wax carrément ne ma azu man moom franchement ci yow laay roy et man souvent man damay toog ma ni man lan lañ war a mën a roy si man mais ku ma wax loolu aussi tamit dama lay accueillir partager ak idée bu ndaw bi ma ci am ñu partager ko mu nice après ku nekk jëriñu ci mu jeex quoi. nee nga si say wax trois ans nga def ci rajo. Mhm. trois ans yombul pour nit def ko ci rajo. mukk ci àdduna mais jour bi nga toogee ci rajo di animé loolu nan la la defoon. Pour dire vrai, ça m'a rien fait. Mmh. À la radio, j'ai pas, j'ai pas, eu de tracas. Defuma dara. Franchement, à la radio, defuma dara. C'est ma première émission defuma dara. Juste le problème qui se causait moi kani, hmm. tok na mais xawma la lay wax en fait. <laughs> J'avais ce problème tok na mais xawma la la wara wa Mais comme ay titre affaire yoy noonu parce que déjà euh tok na ci radio mais boobu dañ ma invité won. C'était le jour de mon anniversaire, le 8 novembre, duma ko faté muk. Hmm. Ñu invité ma tok jour bobu la ñëk mais nag sama émission bu ma njëkk a defal sama bopp moom franchement toog naa à la rajo je l'ai géré j'avais juste le problème que ma lan laay wax <laughs> voilà mais comme ay tiit yooyu noonu moom xëy na nag du ñàkk feneen mu tiit fa mais <laughs> du foofu. waaw mais yaa ngi doon nekk rajo di def ay émission mm. boo defaan émission ba pare duñ la contacter ne la faay yi nga def wala lu yokkal lii wala wàññil lii. à sama directrice. mais moom du la wax. moom da lay dégg sur antenne ngay def lu dul noonu mu ñëw fay rajoom jàpp ñaamuram nga génn dem. après yow boo toogee après yow boo nga ni ma lan laa wax <laughs> wala lan laa def tu vois. Mhm. et c' est comme mu loolu moo lay permettre nga jàngal sa bopp xam yow li nga def nii kat bañ fay rajo bi lii door moo ko def tu vois. après nga ñëw toog waxtaan seeg moom mu ne la nii ak nii ak nii parce que voilà quoi dafa nekk koo xam ne jigéen ju mën góor ma noonu laa ko doon woowee à la rajo Issa Dior Sall directrice de la rajo Mbour FM muy koo xamante ni fii kenn kenn kenn mënu ko ci lenn macha allah ma koy nuyu de passage. tey jii bu ñëpp xamee DJ Azou c'est grâce à elle franchement. parce que moom euh, bien vrai que njëkk naa jaar ci beneen rajo mais ci anam boo xam ne mooy loolu après ma demee foofu noonu voilà elle m'a accueilli avec bras donc alhamdulilah daal. tey jii DJ Azou yow tey benn télé bu la contacté woon pour que nga ñëw def ak ñoom émission comme def ak direct ak ñoom. di mhm. def animation bii nii ngay def. Mhm. yow pare nga pour dem wala da ngay toog pour am leneen looy xaar. <laughs> l'animation c'est waxuma sax télé fi ma toog nii bu ñu ma woon ne ma programme nii nii rek damay dem ma gérer ko après ma ñëw si waat toogul sama moom la ñuy def donc et loolu la ñuy xaar sax ah, télé yi. contacté donc dafa ñëw ci yow naturellement. animation dafa ñëw ci man waaw dafa ñëw ci man naturellement nag franchement parce que mosuma ko xalaat mosul sa nekk su ma romaa nit di animé sama naan xool daf bi. su ma nit ñi yor micro nii taxaw ci public nii di wax naan xool daf bi ñëpp toog moom mu nee na mooy wax noonu sérieux dem sama yoon. mais yàlla bu la bëggee nattu ci dara rek. <laughs> à travers tes parents ñu gis ni yow macha allah célèbre nga am nga ñu la xam am na ñu la bëgg yow ci affaire bii nii ba nga ciy dugg say parents nan la leen defoon nangu woon nañ ko bañ nañ ko. <laughs> j'ai jamais eu ce problème avec avec mes parents. Mm-hmm. ak ci lu mooy mënti dugg parce que xam nañ ni mosuma dugg ci lu ñaax fayda franchement malgré que nag ku dëng laa mais <laughs> côté boobu moom macha allah parce que ñoom ils ont compris lii c'est ton boulot ton travail. donc yaa yaa te ñoom xam nañ seen doom en xam nañ lu ma capable def ak lu ma capable def donc pour rien ils m'ont rien dit xanaa kay di xëy di ma ñaanal ak di ma soutenir macha allah may nuyu de passage. père jaajëf waay mère maa leen siyaar <laughs> ñuy gis pandémie bi ñëw na ci réew mi sonal na artistes yi parce que seen activité yu ñu bëggoon def yëpp defuñu ko yow le 14 février bi yaa ngi doon waajal dara defoo ko oh. depuis 2020 bi ba 2021 ak corona mi ñuy sonal yéen en tant que animateur lan la la hmm. loolu def. beaucoup de choses boy animation boy boy pandémie bi <laughs> pandémie bi on dirait que cette pandémie est là pour je sais pas terminer le monde avec nous xaw ma lan ak lan ak lan ak lan hmm. mais pandémie bi sonal na ñëpp ñëpp kuy animateur rek ku dul anima ñi feebar tëdd ci loolu hôpital mënu ñoo jóg sax pandémie bi da leen a sonn <laughs> déjà waxuma ne nit ñi nga xamante ni ñu la yàlla may wér ñu koy sant bu baax a baax parce que xëy rek. nekk en bonne santé rek dafa neex tu vois lu mënul ñàkk nag foofu mu am mbas la mu wàcc ci àdduna bi dañuy ñaan yàlla mu gaaw jóge mais pour dire vrai moom mu ngi yàq daal te mu ngi continuer di yàq daal di dem moom waaw mu ngi bu baax. <laughs> Ah, yàq gis nañ ne pénal pénaliser na nu ma koy waxee sax. <laughs> pénaliser na lu bari pénaliser na lu mhm. bari. ci yow mii di def animation. Mhm. parce que amoon na lu bari loo xamante ni yaa ngi ko bëggoon defal say fans. yaa ngi bëggoon. organiser lu bari. yow instant bi defoo dara yaa ngi toog. tu sais. Uh-huh. Eh, yaa ngi toog yow. Mm-hmm. yaa ngi nekk di liggéey ci sa ruq pour lii nii bu jeexee. Mm-hmm. nga génn fene ñu xam ne Azum yi. Mm-hmm. durant pandémie bi yépp mi ngi woon ci boppam. le na ne s'arrête jamais pour moi man même bu may nelaw je travaille <laughs> même su may nelaw je travaille pour dire que ni comme ni nga ko waxee pandémie bi est taxaw na lu bari j'avais décidé que ni Mbour waaye foog ma dund loo leen loo xam ne peut-être duma ne mosuñu ko dund mais fekkewu ma ko bokk xalaatu fekkewu ma fu ko Mbour waaye dundee mooy que ni j'avais décidé que ni fépp fu boo xamante ni dañ fa mën a def spectacle dina ànd ak quelques artistes yu nekk au niveau de Mbour ñu dem fa benn euh, one man show boo xamante ni Azou Comedy Club lay tudd déjà c'est un euh, c'est un groupe que j'ai créé mooy loolu sànq yaa ngi may laaj ndax am na ci boo yooyu liggéey ensemble mais après nga di nga benn affaire am nga nit ku ne nit nga xam ne kii bu ma àndee ak moom du dem mais man it du dem kooku pour man e ça sert à aussi mm-hmm. nga nga bàyyi ko si biir noon te waxoo ko dëgg balaa caag ma taxaw dem man se wala ma xool ñi ma mën a àndal ma ànd ak ñoom man je suis pas sur laa leen ko waxee carrément ñu dégg ma tu vois beneen affaire bi mooy que ni aussi euh, loolu bëggoon naa ko trop trop waa Mbour découvrir ko ñu dem ci espace yu ñu ko mën a am yëpp yëpp yëpp ñu teg ko fa mu doon spectacle yoo xamante ni parce que ça va permettre que Comedy Club bi gën a gaaw pour gars yi ràññee ko biir Mbour. parce que naan Mbour amul lii mbuur amul lii. mais nag da ngay xool li amul. man ma gisee yoo xam ne lii amul fi loolu laa kii woon pour créer ko mais ak pandémie bi na ñaan yàlla mu jógee fi rek. ñu xool waaw yàlla fi jógee ak jàmm parce que sonal nañ ñu <laughs> trop. mooy loolu euh, Azou gis nañ yaa ngi animé yaa ngi def macha allah daal mais tamit ñun li lañ bëggoon xam. muy tey jii nii tey. Mhm. ñun ñii comme ñun ñuy toog nii rek. ñu mhm. contacter woon Azou ne ko ñëwal liggéey ak ñun est-ce que yow di ñu permettre loolu ñun ñu liggéey ak yow. <laughs> am nga man <laughs> ku ma fay ma liggéey ak yow. Mm. <laughs> waaw man moom je pense problème au fait. nee naa la lii. bii mooy sa première émission si télé wala am na yeneen tele yi nga xamante ne jaar nga fa def nga fa ay émission samedi passé maa ngi woon Leral TV. Mhm. on m'avait invité d'abord à Dakar donc sama ne la sànq laa ñëw laa jóge Dakar. sam dimanche dimanche passé du moins maa ngi woon Leral TV di nuyu Papito moom invité woon ci émission euh, confidence on l'a fait ensemble pendant une heure trente minutes et ça fait vraiment plaisir et aussi pour dire que je suis élément actuellement je suis élément de la RDV. Hmm? Hmm? <laughs> et ne peut-être gars yi li ñu commencé gul moo tax te loolu noonu yëpp pandémie moo ko mais incha allah bientôt incha allah bu seet dugul bientôt on va démarrer je suis élément de la RDV. ñooñu nga xamante ne ñi ngi animé ay DJ Boubs tey jii ñoom kenn ku la ci contacté woon pour nga ñëw liggéey ak moom. Mm-hmm. yow lan moo nekk say réaction DJ Boubs je je pourrais dire que ça ça serait un plaisir un grand plaisir de travailler avec lui parce que c'est déjà un animateur carré carré calé que tout le monde connaît que tout le monde apprécie vraiment et il est le meilleur de toute une génération ça je le dis te dafa dafa dafa leer tu donc ça serait avec un grand plaisir. Abba pour travailler avec moom aussi tamit dina ma neex trop mais je me demande sur quoi on va travailler. d'accord. Mhm. daal nga koy laaj. waaw Abba tontul question boobu <laughs> mu ngi lay laaj bis boo leen pare woon pour liggéey lan ngeen liggéey ko yéen. exactement exactement. question la boo xamante ni laajuma ko pour nii nii nii mais juste je vois que euh, peut-être Boubacar possibilité bi mu am pour euh, pour am un employé Abba amagu ko. te dama koy ñaanal yàlla mu am ko ba mën na aussi tamit ut ay employé yow ci animation bii nii ngay def am nga ci idole. <laughs> en animation bien sûr am naa ci idole bien sûr. moo ci sa idole. <laughs> moi-même. yow je suis mon propre idole oui. yow sa jëm bopp. Hmm? maanaam daal bu ñu la déggee dafa mel da ngaa fan sa bopp. bien sûr. parce que parce que dafa am aussi lu ko waral. nan hmm, moo waral loolu. <laughs> voilà li ko waral mooy que ni hmm. euh, je suis un animateur polyvalent en je suis un animateur polyvalent cest à ni sànq tudd fi Abba tudd fi Boubs mais je vais je li muy def ma def ko je suis capable Boubs li def ma def ko je suis capable Pape Sidi def tous les grands animateurs que tu vois je suis capable li ñuy def ma def ko plus man li ma mën a def man. moo tax ma ni la <laughs> sama bopp laa fa en fait parce que loolu yëpp dafa daje ci man ma koy sant yàlla du lu ma jàng du dara mais mayu yàlla la daal. d'accord Azou kontaan nañ. maa ngi gën a bi nga accepté suñu invitation léegi ñuy ñuy tàggatoo ak yaroog di la wax lan ngay tàggatoo ak sa mbokk animateurs yi <laughs> lan nga leen di conseiller ak pandémie bi lan ngay ñaan ci réew mi lan ngay tàggatoo daal waaw ok donc ça fait vraiment plaisir aussi tamit partager avec vous ah di lay ñaanal yéen tamit seen télé bi mu dem ba doon ngandima télé yooyu noonu ñëpp xam ko <laughs> ah yooyu nga doon animatrice bu mag a mag a mag ah macha allah ci <laughs> waa donc ça fait vraiment leneen eh, la wañaan baax na fi jógee rek dem abal ñu quoi yaa ma gën a xam ñu mën a nekk ci leneen quant mes amis mes frères animateurs les jeunes yi nga xam ñooy soog a jóg je dis je donne juste un conseil gis nga mbir balaa koy def bàyyil ba xam la ngay def soog a def et image dafa am solo c'est très important image mm-hmm. tey jii nii yéen a débuté ci loo xamante ni peut-être plaisir a tax ngeen koy def nii mais ëllëg mën ngeen dem ba mu doon passion ngeen waroon ci tekki plaisir boobu ngeen si doon fowee ñu génnewaata leen ko mu yàqal leen loolu ah, donc prenez votre temps jéem na xam li ngeen di def ba pare soo koo def foo jamais ngeen di dugg ci benn affaire parce que voilà ni ñi ngi lay ciy wax nii nii non non non nit ki li ngay def toogal nga xalaatal ko sa bopp xam ne man lii laa bëgg parce que fii laa ci jëm ak lii laa ci bëgg mm-hmm, waaw le travail c'est le travail boo ci narte waaw kii rek bàyyi noonu donc di leen remercier encore une fois di kontaan bu baax di nuy waa Mbour yëpp di nuyu waa Seneinfo TV amu leen morom merci beaucoup ñu tamit ñu ngi lay jaajëfal ci ni nga nangoo suñu invitation mbokk yi nii rek lañ leen ko waxee woon ñun waa seen info 8 TV ñoo ñëwoon fii seet si nag di ja azu waxtaan ak moom nii rek lay demee saa su ne. Eh, des na des na des na. lu des foofu. di sant Serigne Touba bu baax. <laughs> ja sant nga ko jërë sant nii rek lañ koy defee ci beneen gox ci beneen artiste ñu ngi leen jox rendez-vous mercredi incha allah ñu dem seeti beneen artiste merci beaucoup.